boo génnee bu campagne bi démarré on va poser beaucoup de ah on va répondre le bilan de Benno. on va analyser le bilan de Benno euh, bu ñuy wax chomage bu ñuy wax immigration clandestine bu ñuy wax gouvernance bu ñuy wax état de droit état de droit boobu euh, am na yu yu ci lanc yoo xam ne euh, yoroon nga ay responsabilités à l'époque lan mooy doon sa discours. sama discours c'est très simple man je suis ministre dama accompagner président parce que moom la ñu fal sur la base d'un programme mën naa ko accompagner en tant que ministre mën naa ko accompagner même sans être ministre. en tant que baron du régime déglu ma wax la dama eh, bu ñu jëlee juróom benni baron ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gunge Macky Sall defandoo ak moom dindee ndeew ak moom Aly Ngouille yaa ngi ci juróom benni baron yooyu. waaw léegi ci juróom-benn baron yooyu mën naa am tey jii. su ma gëmoon ne ci juróom benn baron yi baron yëpp noonu ki mu tànn ci la bokk su ma ko gëmoon kon man naam bu ko tànnee du am problème. répète nga ne <laughs> am na lu ma saisirul. nga ne juróom benn baron yooyu. waaw ki mu tànn. bu doon bu ma gëmoon na ci la bokk. man naa bu ko tànnee du ma ci du ma comment on peut sortir la main du ministre des finances la main du euh, du ministre Moi, des finances de 2014. à à à a 2000 je suis en train de euh, parler je comment on peut sortir la main du ministre des affaires étrangères de tous les actes de gouvernance qui ont été posés dans ce pays là yaa da nga wax ne. juróom-benn baron yooyu kay Amadou Ba ci la bokk. ah bon d'accord léegi nag man jàpp na ne bokku ci. waaw mais dama ne. nga def li ñu fi def yëpp. sa loxo mën na la li ñu fi def lépp président Macky Sall ci boppam moom mooy njëkk a répondre parce que moom la ñu faloon pour loolu ñun dañ ko gunge pour mettre en œuvre tout simplement te ñun fi ñu gunge pour mettre en œuvre fenn fu ci nekk nag acte bu ñu fa teg suñu responsabilité dañ koy assumer. mais de manière générale. mais de manière générale quand on va dire bu ñuy lajjee ci emploi ki njëkk dañoo lajj a lajj ki mais dama ne bu ne fekkee lajj dafa am ki njëkk a lajj. c'est vrai on peut parler de gouvernement on peut parler de coalition mais président Macky Sall moom moom la. mais vous êtes comptable. mais je suis pas di di moom mooy njëkk le premier comptable ma ne xam nga boo ko doon comparé tey jii président Macky Sall su fekkente ne mooy le grand comptable ñun peut-être mën nañ jàpp ne ñoo koy mais lu ñu fi porté critique. mais lu baax ak lu bon. lu baax ak lu bon. vous en êtes content. non dama ne luñ fi def. parce que dama ànd ak régime lu baax ak lu bon j'assume ma part de la responsabilité. léegi xam man j'ai j'ai un problème. de tu as plusieurs problèmes lu benn. problème damay damay soucié wu ma ne ma ne ku mel ni Aly Ngouille Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao fan la ñuy jëlee ban discours la ñuy adopté. ba mën a convaincre les les les sénégalais. la ñuy convaincre les sénégalais. am discours am fait danañ am discours ñun xam nga ne am nañ discours. la ñuy convaincre Sénégal yi mooy lan leen yéene ci juróom at yii di ñëw. non ah no assi ah <laughs> bu bu ñu parce que boo waxee loolu da ngay logique tuuti. président Ablaye Wade ñaata yoon la dugg ci gouvernement Diouf. barewul barewul gouvernement euh, de majorité présidentielle. waaw dafa dugg. 91. Euh, waaw génn. waaw duggaat 94. waaw génn. waaw euh, dugg bu nekk. dafa fa d'accord mais dama ne ci la dugg. déglu te ay ay ay ministère symbolique. Euh, la yor moom. président Macky Sall. waaw ah. ñaata yoon def ci gouvernement ma Abdoulaye Abdoulaye Wade ak yan poste ba ko bi mu d'accord dañ ko génne moom génn sax d'ailleurs bi mu d'accord dañ ko génne. mu dem jaay Sénégal yi li ma bëgg sept ans yi di ñëw loolu moo intérêt Sénégal yi parce que ce n'est pas le passé président Macky Sall il était avec le président président Abdoulaye nekk premier ministre nekk organiser ko campagne électorale. waaw mais Macky Sall dafa quitté mille déglu ma ñun ñëpp fi la nekk. il a eu moi j'ai pas eu. donc il a eu trois ans yow nga quitté septembre. kon kay octobre novembre décembre janvier février li may li may apprécier mooy ci résultat yi mais dama ne la dugg na à mois de donné génn nañ ko mu doyloo Sénégalais yi doyloo yàlla dem wuti waat tout simplement Sénégalais yi wóolu ko jox ko ko bul xaar ci man leneen. avec une seule différence man maa génne sama bopp